surtout lu gën a grave si vous le c'est que wax na ko sànq lu ñu annoncé woon loolu moo génn ci nombre candidat ak ñëbu béeg yooyu yëpp mhm. noonu la demee mais lu ci gën a graw moom mooy ci juróom ña nga xam ne euh, ña nga woon autour de la compétition mhm. daanaka kenn rek moo ci nekkoon opposant sérieux bi nga xam ne mooy Ousmane Sonko ñeneen ñëpp gis nañ ko ñenn ñi ils ont reconnu que ñu ngi doon waxtaan ak sa sawaay am na ñenn ñoo xam sax il paraît que dañ leen a jox parrain léegi aussi ci beneen problématique bi pour rebondir ci lu doyen wax euh, moi est-ce que le parrainage est un mal nécessaire man déjà lu ma gëm moom mooy euh, politique démocratie réalité la suñu vécu yow 2019 dañ la bloqué woon non kenn bloqué man dama dem gis conseil constitutionnel ñoom daf nañ xam nga ñun 27 candidats la ñu woon maa ngi woon 27e sur ordre alphabétique. Mhm. après gis ngeen ñu génn def c cinq man maa nekkoon c un bi demoon CEDEAO parce que dama dem laaj leen waxuñu ma lu leer pour contrôler ma bàyyi dem foofu jël suma yoon. ok suma mhm. responsabilité. Mhm. Euh, comme ni mu ko waxee sànq docteur les mêmes causes risquent de. produire les mêmes effets mais est-ce que le parrainage est à la Euh, déjà dama jàpp ni vraiment on est dans la politique dans la dans le réel on n'est pas en poésie mm mal n'est jamais nécessaire mhm. loolu laa gëm mhm. mal moom voilà tegal fa mhm. donc le mal tey dafa am benn philosophe bu mag bi nga xam ne il a beaucoup écrit sur les crimes nazis et tout ça Anna Arendt philosophe sur la banalisation du mal xam nga lépp lu tas réew rek même génocide bi pour mu am il a fallu ñu jël ay nit déshumaniser leen. Mhm. tak say leen gis ngeen ko Rwanda ak ba yegg si mhm. fu ñu yegg. démocratie suñu dé démocratie moom lañ dañu ñëw ba soofantal njombe ak def lu bon. li xew DGE nga ñëw nekk candidat ñëpp xam nañ ne en droit administratif comme en droit électoral lu cëru administration. Mhm. parce que waa ji fu mu toog ci chaise am amul benn élément fond de dossier bu koy permettre bu apprécier en parfaite connaissance de cause mhm. xam ne yow su voie de recours yëpp épuisé nga ko ce jugement c'est définitif amul dara lu koy mbir la problématique yooyu mhm. ñun en tant qu'avocat on vit ça en France surtout dans le contentieux des droits des étrangers quand vous amenez un étranger déposer un dossier d'asile ou un dossier de demande de titre séjour, des fois, certaines préfectures zélées vont vouloir opposer un refus au guichet en disant on ne prend pas le dossier, le ah dossier n'est pas complet ou ainsi de suite ou le monsieur n'a pas fait trois ans ici sur le territoire. Mmh. Mais à chaque fois, quand vous saisissez le juge administratif, il rappelle la jurisprudence constante depuis l'administration n'a pas un pouvoir de refus au Aujourd'hui, quand un mandataire se présente devant la direction générale des élections, mais le mandat qu'il a, mais le mandat, il n'y a même pas la pièce d'identité du mandataire. Il n'y a même pas son numéro de carte d'électeur. Il n'y a même pas sa mention sur les listes d'électeurs. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une exigence. Vous venez avec une lettre formelle, mhm. il n'y a pas de déclaration d'honneur comme quoi que vous êtes éligible. Mhm. Donc, à partir de ce moment-là, l'administration doit se borner doit se contenter, pour, j'utilise le, nom, <laughs> le terme borné parce que c'est un mm-hmm. terme administratif, mm-hmm. à se limiter, se cantonner à son rôle, c'est de vous remettre le formulaire. Maintenant, le juge, au fond, appréciera le moment venu. mais dañ ko soofantal da ngay ñëw taxaw ñu dàq la. yàlla non duñ la jox et puis ça ne choque pas. moi je me suis indigné par rapport à parce que dama jàpp ni on est en de perdre notre capacité d'indignation et c'est commence le mal dans <laughs> man pour man pour man le mal mooy le mal mooy ki def loolu kan moo ko jox instruction pour mu def ko ak lan moo ko ci mën a fekk bu fekkee c'est un de l'État lan moo ko ci mën a fekk mais kooku kooku chefam ci boppam rek moom ci boppam mooy endossé responsabilité. mooy le ministère de l'intérieur bu deful woon loolu une heure de temps après ñu dàq ko pour insubordination. par contre li ci gën a garaaw moom mooy euh, mal boobu c'est-à-dire tey le refus c'est un refus illégal mais qui résulte d'une haute illégalité le refus du Sénégal de se conformer à au jugement de la CEDEAO. dañu ko ñëw ne ko baaxul da nga koy dindi non seulement mu ne du ko dindi day défier cour bi mais ba pare. l'opposant un des opposants en tout cas en vue mu ne ko yow da balay dàq du ma la jox et je me fonde ma légalité sur xam nga xam nga CEDEAO moom moom daañ ko mais foofu <laughs> foofu laay jeexal crédibilité pour jeexal jox docteur moom mm. mooy tey nag loolu mooy paradoxe bi aussi loolu moo ma si ci Macky Sall parce que tey euh, mu ngi xataraayu ne day dem Niger xeex mm-hmm. pour restaurer la démocratie Euh, xam nga protocole bi nga xam ne ci la cour CEDEAO bi sukkandiku pour condamner Sénégal ak convention yooyu mais protocole boobu tey moom la ñu jiiñ waa Niger que mhm. militaires yi dañ ko xëtt euh, comme lu ñuy wax moom nag moom la àtteem gën a leer parce que àtte bu àttee au sens au propre comme au sens figuré dafa taxaw jël juróomi avocat jébbal dossier ñu àtte ñu ne ko da nga xëtt yoon mhm. mu ne du ko jëfe mais pare na moom pour yóbbu contingent nee na pour restaurer la démocratie sauf que protocole boobu lu mu wax dafa ne rupture de la démocratie mhm. par tout procédé mhm. maanaam ka nga xam ne dafa foqati nguur yi par un coup d'état constitutionnel mhm. wala un coup d'état militaire wala des manœuvres législatives ñoo yem àtte d'une certaine manière donc tey comme lu ma la wax rek euh, mbir mi moom euh, donc on ne peut pas considérer que c'est un mal nécessaire peut-être le fai de filtrer c'est nécessaire mais on ne peut pas fonder quelque chose de bien sur un bal. le bal moom bu nekkee bal rek dañ ko war a teg de côté. ça c'est oui.